wolof dikkaat nañ ak yéen ci seen chaîne youtube bi di jàng anglais ci wolof ñu dikkaat ak yéen ci beneen bind bu aju ci mm, wergo yi maanaam couleur yi nga xam ne moo am waaye nag ñu tànn ci yenn yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci anglais couleur yooyu nag fii tànn nañ ci lu toll ci juróom ñeenti couleur bu njëkk bi mooy white mooy lu weex blue blue ok mooy lu baxa black black mooy lu ñuul red red mooy lu xonxu green green mooy lu natax yellow yellow mooy lu mboq grey grey mooy lu baam baam mooy euh, wergo ci wolof brown brown mooy lu xul wala palmaan xul wala euh, palmaan purple ok purple moy lu xeme gis nga bu ci nek sax amna ci yo xamni mel nañ ko ci euh, wergo bopam ngir ngeen ragne ko kon yi moy nek couleur yi nga xamni mom moom lañ leen yenn ci wat yi nga xamni dañ koy faral muy am am solo lu ci melni bo bëggoon wax ni sama yaram bi dafa ñuul ok nit nga koy waxe moy my skin my skin is my skin is black ok my skin is hmm. black alright kon gis nga dañ ci jaaraat beneen yoon ngir ñu gën ko bàyyi xel white blue black red green yellow gray brown purple ok white weex blue baxa mooy mooy mooy mooy mooy couleur am black ñuul red xonq green la tax yellow mboq grey gris wala baam brown xuun purple mooy xeme loolu mooy kon seen bindu tey di sàkku ci yéen ngeen jàpp ko bu leen ci amee ay laaj wala ay njañte ngeen def ko ci suuf ci commentaire yi bu ko defee dees na ci ñëw indi ay tontu ak ay leeral jàng anglais wolof ñu ngi leen di gërëm di leen dox jox dig daje ba beneen yoon thank you very much